على اشتغالي بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن شكرته لأنه قد ساقني لوطن به نفى معقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بملاذي اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فصان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإني اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داعي وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منا بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد شرواك فجدت لليوم بخير منني وقدتني إلى اقتفال السنن من بعد ما كان امتداه الناس يدخلني في شرك الخناس وكدت للأملاح والإقراء أزهد في التأليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليشفعوا في سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالك يا خالق الأنام أمد هواي بالله من شر الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم wasalaatu wasalaamu ala nabil huda wa rahma seydina muhammadin wa alihi wa sahbi wa xadimi wa man tabiin bi ihsaan ila yawmi yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo leen nuyu yéen ñëpp te di di jël nuyoo bi ak jaar teg ko ci loxo sëñ Abdou Samad mi nga xam ne mooy kilifa jotaay bi ak sëriñ Mamoun Mbacke su ko defee ñu wasaareel ñu ko ci kull koo xamante ne bii rek yaa ngi ci jotaay di wax ne tey jii ñoo ngi fii ci Daaru Salaam kër Serigne Gaawaan buñ ne kër sëriñ gaawaan euh, maanaam tey ji fàllu gala sill moo aaye ak euh, ay magam ak rakkam ñoom lañ fekk ñu xatu sëtu ci xaadi mutt fa ñu gën koo xam ci maam xaadi xaali Moustapha ñu gën koo xam ci maam xaadi mutt fa buñ ne kër sëñ gaawaan mooy bàyyi seex sill mi nga xam ne mooy borom kër gi mooy woy juru sëñ fàlloog ay ñim bokkal ñëpp sëñ gaawaan lañ ko tudde ndax maam Cheikh Anta ku amoon kóllëre la ak maam Xaadi Mutu fa ndax tudde na ko doom sëñ Moustapha Ceytu maam Xaadi Mutu fa lañ ko tudde moom itam mu tudde ko doom bay Cheikh mii sëñ Gaawaan la ko tudde kon kóllëre mag ñi ànd ñoom nañu nañoo ànd waaye àndu nawlonte lañ doon ànd ndax maam Xaadi ay qualité yu nekkoon ci moom taxoon na ku ko mosoon a xam da koy bëgg te da koy fonk ndax koo xamante ne bii bu ngeen séqee mbir lum la mën a jariñ dana la ko jariñ te doo la ca yàqal dara joo jikko la amee woon maam xaadim muttu fa nag ñu ko daan wax xaadim Moustapha jëmm la woon joo xamante ne bii échantillon la woon ci ay jamonoom ñi mu jamonoon ndax ku ne xam na ne sëñ Tayba Maxtaar Penda mooy way juram foofu la ñu jëkk a tàmbalee sax da nga naan maam xaadim muttu fa kan mooy waajuram ñu ne sëñ Tayba Maxtaar Penda mooy way juram sëñ Taïba Maxta Penda kan mooy waay juróom ñu ne sëñ Taïba Masamba Mareem mooy waay juróom ma sëñ Taïba Masamba Mareem kan mooy waay juróom ñu ne sëñ Taïba Ahmadou Mokhtar mooy waay juróom sëñ Taïba Ahmadou Mokhtar kan mooy waay juróom ñu ne la sëñ Taïba Maseer mooy Maseer Fatma Andala Cissé mooy waay juróom sëñ Taïba Maseer Andala kan mooy waay juróom ñu ne la sëñ Taïba Maxtaar Mademba mooy waay juróom sëñ Taïba Maxtaar Mademba kan mooy waay juróom ma demba jëleen mi nga xamante ne mooy addunaanam waa ci leen mooy way juram kon maam xaadi noonu la sëtoo ci Tayba ma demba jëleen moo jur maxtaar ma demba maxtaar ma demba jur maseer ma ànd la maseer fatma ànd la jur ahmadou maxtaar ahmadou maxtaar jur ma samba mareem ma samba mareem jur mataar penda mataar penda jur ko kon noonu la bokke ci Tayba silsilaam ci Taïba noonu la ah moom nag li ñuy wax maanaam dafa donn baax wala dafa fekk baax moom looloo ko dal ndax ay wejuram ay jàmbaar lañ woon ay maamam ay jàmbaar lañ woon ndax maamam jooju nga xam ne mooy àddinaanum wàcc leen tey buñ ko waxee rek ñun daanaka bu ñuy lim ba agsi ci ma dem ba jëleen ñun duutu ñu am pour jéggi moom bi muy gàddaay di ñëw fii ci ndogal di sanc dëkk bu ñuy wax Taïba bépp booba mi ngi jóge woon fële ca at euh, maanaam euh, njekki naan njekki naan gëla ca Louga booba itam wax nañ ne ñoom ñi nga jóge woon ca kaw waa penku lañ bi ñuy ñëw ba foofu ñu yend fa ci benn dëkk benn garab ci àll bi wax nañ ne biñ fa nekkee ba wàllu tisbaar jot seen xel nekk ci jàpp ak yooyu amuñu ndox benn bar ndeke guy gi ñu nekk guy gu mag la am na bar bu yéeg ci kaw daal di dugal genn bi ci ndoxum ci suux gi daal di koy yëngal ndox mi toq leen ñu jo yéeg xool garab ga ca kaw daal di gis ne ah fii de lii de ndox la ñu yéeg xool ko fekk muy suux gu mag ak suux nag boo ko xamee mooy garab gu mag goo xam ne day amum lëm nga ne buy taw bu nawetee lëm mi day duy ndox ndox moomu nag day bari lool bu ko bu dee garab gu mag ndox moomee ca lañ tàng jàpp ci naan ci wëgg ci seeni fas daal di julli daal di fii de ku fi jekki naan loolay turu njekki naano moo tax ñu daal di sanc dëkk boobee bañ sancee dëkk boobee nag ay jamono moom mu gis ne la taxoon ñu sanc dëkk bi muy jaamu yàlla ak wéetal suñu borom buur yi parce que ñoom ay dànn lañ wax naa la ñoom ay niti nguur lañ woon ca penku fañ dëkkoon nit ñu mën na xare lañ ñu mën na jam lañ léegi nag buur yeeg ñooñu ñu daan leen nii jëm a jëm si ci ñoom xam ne dañu def bëgg a coaliser ñoom ci la moom gàddaaye foofe ñëw nag ne moom dafa bëgg a wéetal yàlla bi muy ñëw itam bi mu ñëwee ba ndogal bi mu gisanteeg buur bu ñuy wax Abdallah Buri Faal booba moo fi nekk mooy sëñ ndogal mu ne ko man de fu ma rawalee sama diine laay wut mu ne ko yéen de waaw da koo ne sax maanaam wax ko ay kii mu ne ko waaw yéen naa leen sa war a daloo ndax yen ay dànn ngeen maa ne ko man dey mbirum àddina moom taxumaa jóg mu ne ko ba tey itam nit ñu xor ngeen nit ñu mën a ñaan ngeen maanaam ñu def leen seeni suñuy sëriñ ngeen di ñu ñaanal bi ko diir bu gàtt mu gis ne sëñ dogal li muy def maanaam diine ji dafa am lu ci rax ak ceddo da cee rax tax mu daal di bëgg koo dànn daal ne ko man ne damaa bëggoon nga may ma ma sanc mu daan ne ko suuf moom su ma la mën may nga sanc man óomu mu daan ne ko kon man dinaa wuti suuf ci la demee di wër di wër ba gis àll tay ba bépp boobu boobu bi mu ko gisee daal di ñëw wax ko Abdalla Buri Fall mu ne ko ah suuf soosu de man moom ma boo demee ñee sant béy dëkk ca wetu kër ngaaw dëkk bu ñuy wax ngay géen ñooñee ñoo moom suusoo daal di ànd ak moom dem ca ñooña ñu dogal ko fa aw lew mu gor ko bi mu koy gor itam mi ngi àndoon nag benn taalibeem bu ñuy wax ba Gay ñoom ñaar ñoo fa nekkoon di gor di gor di gor ba gor fa dëkk bañ fa nekkee ab diir bu gàtt Yaxooba Gay wàcceb liggéey bi mu liggéey mu ne ko dama ko bëgg a suul fii ndax comme maa ngi moom a fi doon liggéey ba yàlla wàcce ko dama bëggoon def ko fii di ko wétli ko Abdallah Buri Fall ne ko déedéet ay armeel ci ndogal wala Tayba mënta am lu dut jeere booba jeere kese la ñuy suul mu ne ko hmm, fii laa koy suul mu ne ko boo ko fi suulee dinaa la alamal mu daal ko fay denc wax nañ ne da ko ne danga ma yót fasu naaru góor kera aw fasu naaru góor la ko yót mooy amaan bi léegi biñ toogee ab diir doomam ji mu àndal ndax wax nañ la bi muy ñëw moom benn doom bu góor la àndal bu toll ci fukki at wala fukki at ak benn moom ma dem ba jëleen moomu waaye moom dane woon moom duutu denc soxna waaye doomam jooju bi mu demee ba mat a am ba mat a uh, samp kër mu daal di ne damaa bëgg dama ko bëggal soxna waaye xam naa réew mii nga xamante ne fi laa nekk ab doxandéem laa fi ndax boobu amu ko fi ñaar fukki at nit nag fa mu dem amagu fa ñaar fukki at ab doxandéem dong lañ koy jàpp mu ne bu ma fi bëggoon soxna duñ ma boole ci ñi nga xamante ne bii ñoom laa war a àndal duñ ma ci may daal di ne damay dellu mbaa njaambur gañ ma xame ci la takke fasam war ko di dem bi mu demee ba biir kajoor nag ci la ak dëkk bu ñuy wax njarmeew siise daal di yendal fa ba tàkkusaan góor gi ko daloo woon daal di ne ko du ba ba muy gontu mu koy bijjanti ba ca ginnaaw kër ga mu ne ko waaw ñun kajoor de baaxoowu ñoo xam am gan te lu muy dox surtout gan gu mel ni yow parce que booba euh, ma dem ba jëleen nit la koo xane ne maanaam nitu culture la ku ko gis xemmeem jëmm ji ndax njàmbaarte gi ci moom ak ak ak ak diine ji ku xemmeemu wala woon mu daal di koy laaj ne ko léegi lu doon say tànk mu ne ko man de fee ma nekk dama fa dib doxandeem te damaa am doom joo dama ko bëgg sampal kër ma bëgg na dellu na njaambur gañ ma xamee wutal ko fa soxna mu ne ko lool dongal la tax a jóg mu ne ko waaw mu ne ko Fatma doon togg añ sama dooma te naa dem kër nañ dëpp ma jox la ko nii lañ ko ko daal di joxe mu indil ko ko bi mu ko indile mu am ci ñaari doom bu góor ak bu jigéen kenn ku tudd Maseer ki ci tudd Mariam Mariam moom mi wax nañ ne moom jot dem kër ci ndawam la faatu boo gisee Marème si lii bari ci ba loolu waar looloo ko sabab léegi mm, euh, kii moomee Maseer moomee bi mu demee ba nga xamante ne bii mat naa samp kër dafa dem càqami Touré jël fa jigéen bu ñuy wax soxna Aminta Touré ñi ne déedéet soxna Anta Touré la waaye de toute façon moom càqami la jëleb aawam te Aminta maanaam te Touré la sant bi mu ko jëlee daal di ci am ñaari doom muy Ahmadou Mokhtar ak Massamba Mokhtar Ahmadou Mokhtar mooy Taïba Xay ak li aju ci moom Massamba Mokhtar mooy Taïba Dakar ak li aju ci moom kon noonu la Taïba Xay ak Taïba Dakar noonu lañ demee ñaar ñi leen meññ ñoo bokk ndey ak baay moo tax ñu bari dañuy jël histoire bi xew Taïba di ko transféré di ko yóbbu Taïba Dakar wala histoire bu tay xewoon Taïba Dakar ñu koy indi Taïba ndax benn maam miñ bokk moo tax ñoo bokk ñëpp noonu lañ demee waane mu dellu Pew Faal jël fa benn jigéen bu ñuy wax Anta Kumba Faal moom itam mu am am ci ñetti doom yu góor kenn ki tudd Biraama kenn ki tuddu Balla kenn ki tudd Maxtaar ñuy wax birama Anta Kumba Faal ak Maxtaar Anta Kumba Faal ak Balla Anta Kumba Faal Biraama moo sanc xabsu mooy maami ami silmi ak ñi aju ñi mbokkal mooy Birama mooy mooy mooy sëñ xabsu moo sanc xabsu maanaam Balla moo sanc Tayba Kalom ak ñi ci bokk ñëpp euh, Maxtaar moo sanc Tayba Njaañ ak li ci aju loolu mooy juróomi penc yi nga xam ne mooy penc yu mag yooyu Tayba yi léegi nag Tayba Ndaw Mirina Sill Daaru Salaam yooyu yëpp ci Tayba la xaar lañ Euh, jajji kër njaga tayba gu mag tayba gu ndaw yëpp ci tayba njaañ lañ kër maseer kër balla ak euh, kii yëpp ci tayba kaloom lañ kër amadou ak kër maseer xaadi yëpp ci tayba ak kër seynu yëpp ci tayba xay lañ kon nii la soxna maanaam kii deme kon taawub yéen a ngi dégg bu baax maanaam ki nga xam ne mooy Matar Matar Fatma ànd la Matar kii Matar Mademba moo jur juróomi taaw yi moo jur Maseer Maseer dem jël ñaari jigéen am ci juróomi taaw yu góor ñaari jigéen ñi la jël am ci juróom ñi ñu sañc dëkk yi Tayba daal di barkeel histoire Tayba nag bu ñu ko toppee duñu fi jóg feeg gee wala feeg suba parce que mënuñu ko wax lépp ba mu yegg waaye comme Taïba Xaye ñu tax a jóg rek wala genn kër lu tax a jóg ci Taïba Xaye muy kër euh, Matar Penda ñu xuus foofu léegi nag bi nga xamante ne bii wax nañ la leen ne Taïba Xaye euh, booba sëñ amagu Taïba bi rek am ba tey Taïba bi ba am ba ci ji léegi nag taaw yee juróomi taaw yi ñoo sanc kii sanc Taïba ki kii sanc Taïba Dakar ci ñooñu ñu bokk nday soxna Aminta Touré kii sànci Xabsu kii sànci Taïba Njaañ kii sànci Taïba Kolom ñu bokku nday muy soxna soxna Kumba Anta Kumba Faal kon ñooñu Maseer Fatma mooy seen baay léegi nag bi nga xamante ne bii ñooñu seeni doom ñoo sanc ñooñu juróomi doom yooyu ma wax du ñoom ñoo sanc de ñu bari dañ naan ñoo ñoo sanc waaye seeni doom ñoo sanc seeni doom maanaam doomi Ahmadu Maxtaar mii Matar Aminta Touré doomam bu ñuy wax ma sam moom dafa dellu kër nijaayam jël fa jigéen bu ñuy wax Marème Touré Marème moomee taawlu mas taawloo ma sàmba ma sàmba moomee moo sanc tay ba xëy ma moom bi mu sancee tay ba xëy dafa doon dafa nekkoon pir doon fa jàng doon jàmbaar lool ñu naw ko fa ba muy ñibbisi sëñ pir may ko soxna muy soxna Penda Buyo Fall soxna penda moom moo jur maxtaar penda maxtaar penda dem bi mu ñëwee doon jàmbaar lool mooy taawab sëñ Taïba Xay waane dafa dal di organiser Taïba Xay ba mu nekk ba mu nekk dëkk boo xamante ne bii lu waaye di wuti ci àddina rek man nga faa dem lépp am fa ndax booba am na ñetti rakk yoo xamante ne moom ñoo bokk benn baay te ñépp ay fóoree lañ mu daal di jël ki nga xamante ne bii mooy mas euh, <clears throat> ki nga xamante mooy Ahmadou Marème Balla mooy waa kër Amadou Sill buñ ko waxee ñoom Fallou Gala Sill ñi ak ñooñu ñooy waa kër sil Sill seen maam Ahmadou Marème Balla moom la ñu dénkoon lépp lu jublu yu jëm ci wàllu enseignement supérieur nga xamante ni maanaam moom fu waay jóge ci àddina téere boo bëgg a boo ñëwee mu jàngal la bari na ay kàngam yu jóge ci moom ndax ku mel ne tey sëñ Abdou sëñ Balla Faali mii tey di woy jur sëñ Abdou Dieng Balla Faali foofee la jànge fala moot lay ba moo ko joxoon wérd moo doon sëriñam ginnaaw bu sëñ Tuubaa feeñee la buur dem mën naa cee lim ay kilifa yu baree bari sëñ ma euh, kii moomu Masamba euh, euh, Amadou Marème Balla moomu kon mooy moom lañ féetale woon loolu kii nga xam ne mooy sëñ ba Bamba mooy way juru maam Matar Absa ak maam mën naar ñoom kooku moo yoroon wàllu li ñuy wax maanaam bu doon tey dañ naan ministre moo nekkoon ministre des affaires étrangères maanaam mboolem lu aju ci euh, politique gu bitim réew moom moo ko yoroon ci jamono yooye ki nga xamante ne bii mooy maami ñoom Penda Syll mais nga xamante ne mooy euh, Masamba Aminta moo yoroon wàllu organisation bi nga xamante ni moo yor maanaam moo yor baatu dëkk bi nga xam ne diggante la suuf seek suuf si ñuy dogle maanaam asaka yi fi fi mu war a dem ak yëpp moom moo ko yoroon nga xam ne dafa nekkoon loo xamante ne bii luñ organisé wul na kenn ku ne ñu am luñ la jox nga yore ko dëkk boobu nag di dox ne di dox comme ni état di doxe lu jiitu booba maanaam organisation yu bari mënuñu am léegi nag euh, mu daal di xiir njabootam yépp nag ci ñu dem jàngi xam teel leen xamal àddina bi nga xamante ne bii tubaab bi ñëw na ci réew mi ba noote réew mi yépp ba foofu ruq boobu dong des fi léegi kii nga xamante ne bii mooy euh, bi mu rayee waa ji damel sàmba yaaya daa daal di jël benn commandant teg ko fi bi ko fi tegee ngir lan léegi ku ñuul duut fi gouverner nga atteeñ amatu fi bawal mu daal di jël jël commandant boobu teg ko fi pour mu yor bawal mais am li ñuy wax euh, kii bi mu ko defee yor ba téye bawal nag yor ko ci kii ñëw peeñ tanoor ñëw ne moom doomi buur la comme doomi buur la te dafa war jël réew mi du nangu maanaam réew mi di dox ci moom euh, ba agsi ci moom ñu koy joxub tubaab fekk fekk booba fekk booba maanaam euh, mene ki nga xamante ne bii maanaam monsieur mene monsieur mene la la la tubaab bi nommé woon foofu comme comme comme comme teeñ mu ne mu yor kii bi léegi <laughs> waa bi biñ jële biñ jëlee monsieur Mene moomu euh, nommé ko comme comme kii koy boole mu dajale ko mu doon benn ndax mu gën a dégg nga ñu jël monsieur Mene nome ko mu nekk fii comme teeñ teeñ Tanor bañ loolu daal di ñëw ci ci maam euh, kii mbay maam Mor mbay mi dëkkoon daaru mbay boobu moo ko doon ñaanal sëriñ moor mbay moom ngay dégg bi mu ko ñaanalee daal di ne ko da ngay dem Taïba ndax boo demee waa Taïba ñi buñ la ñaanalee da nga li nga bëgg da nga ko am ba mu da ko dugal xalwa tegtal ko Taïba bi mu ñëwee Taïba ñu daal di koy dogal foofu ñuy wax njaxate diggante Taïba Kalom ak Taïba Xay am na benn tool boo xam ne mat na un kilomètre wala mu jege ko maam xaadima jaxate la ko dammeel Samba Yaaya non dammeel kii ku ko joxoon euh, dameel bi santoon Fall dama koy fàtte moo ko dogaloon foofu léegi tool boobee nag bu muy dem da ko jox sëñ Taïba Xay léegi nag sëñ Taïba Xay foofee la dëkkaloon teeñ tanoor ñoom dawuñu jaxasoog buur yi dañ koo beroon foofu di ko ñaanal di ko defal seeni bagage ba yàlla dogal tàkkusaan gi mu fa jógee tàkkusaan gi fa jógee jëw jëm si ci e, kii bi e, ñu ne ñu ne monsieur Ménédé mi ngi wër teeñ tanoor mu daal di koy dégg fii ci laa laa gi ci ngaabu fi la ko dégg daal di koy gàttandu fi la ko ray fi la dajeeg moom tàkkusaan di koy ray daal di ray monsieur Ménédé bi mu ko rayee daal di daw ñëw ci sëñ Touba bi mu ñëw sëñ Touba wax ko ko sëñ Touba ne ko demal ci Taïba yooyu foo fi nekk jàmm rek la fay fekk mu daal dellu si fi nekkoon bi mu dellusee nekk foofu ba tubaab bi fekk ko fa ak nomination lettre bi nga ne moo ko nommé léegi nag ci la ñëw ne Taïba nag yéen lu ma leen di faye léegi damaa bëggoon jël ci yéen kenn. def ko sama xaadi parce que gis naa ne seen ngor mat na seen diine mat na te maanaam bu ma bu ma leen faloon tey bu ma leen faloon tey ku ma ci faloon jàpp naa ne doo topp àddina ba di ma yàqal ci la ci lañ woo sëñ Mérina Sill Masamba as Masamba Xari Diop ak sëñ Moustapha léegi sëñ mbir daa daa di bàyyam daa di ne sëñ mbir ne mënumaa sori ndax mooy sama loxo ndi joor kon nañ nañ nañ nañ def Moustapha xaadi loolu mooy tax ñu jël maam xaadi daal di koy nome daal di koy jox teeñ mu nome ko xaadi mu koy atteel waaye diirub li nekk maam xaadi diirub lim nekk ci teeñ di atte itam ak maandute aku xereñte la daan doxal ak maandute aku xereñte ba tax na bi nga xamante ni teeñ saay na itam mu ñëw ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa da koo laaj ne ko yow mi xaadi loo atte bil ardi mahal araadi mu laaj ne ko atte naa ne yow Bamba yaa mat ilimaan ndax yow rek yaa mën a jiite gaa yu bokkul fu ñu jëm ndax sa ñaare ngi nii sa ñaari maamoom a ngi ku leen jiite woon nëga ni jamuñ nga mbaa nga juum ndax Seex Mbàkke bu soo ngi nii du faat waxtu boroom te Seex Ibra Faal ngi nii du julli juróom ba tax na ko ba tax na ku jiite woon say jam say maamoon ba nëgënu jamuñ nañ la walla nga juum mu ne ko fax di wa anta xoodi fafal di atte ña keroog may na ko may yoo xam ne kàngam yi ak tubaab yi daaw ñu ko may ba fay ne Sëriñ Tuubaa may na keroog maam xaadi loo xamante ne bii kenn mus ko koo may ci àddina ndax tubaab yi liñ daan woomal lépp ak ñi daan ànd ak buur yi liñ daan woomal lépp taxut ñu daan maye may may maam xaadim lu toll ne la ko sëñ Tuubaa may keroog faq dem joojee nag mooy mooy mooy kiyam kon maam xaadim mutu fa ba tey ci moom la ñuy nekk ndax war nañoo wax ne la mataar pendaa ko jur waaye kan mooy mataar penda mi way juru xaadi mutu fa mataar penda nit la woon koo xam ne ay jamonoom ne naa la mooy taawab sëñtaay tay waxay bi mu nekkee boroom Tayba xay demoon na ba yilif Tayba yëpp àggoon na ci yor ci alal loo xam ne ak ay jaam ak xam-xam ak mbooloo ak suuf kenn xamul nu mu toll agoon na ci ne day fetal jihaat waaye bi mu woot wootee ne damaa bëgg fetal jihaat woo benn shérif mu koy dugal xalwa bi mu ko defalee xalwatu am na ñu ne sëñ Tayba Dakaar ko doon defal xalwatu am na ñu ne sëñ Pire ko doon defal am na ñu ne sérifum naar moo ko doon def waaye de toute façon dafa duggul woon xalwa bi mu defee xalwatu pour war a jihaat ñu ne ko da ngay fob ñi nga xay ne ñoo war a ànd ak yow ñëpp nga boole leen benn jataay nga naafila ak ñoom ab kaamil guddi gi ñu koy war a def nag fukki fan ak juróom-ñett la ci weeru ut te dañu wax ne guddi googu faw mu taw léegi biñ tàmbalee ñëw ci penc ni dajaloo ñoom ñëpp. mu tàmbalee bàqara jëm si naas yi bi mu laata am ñaar fukki xisib xiin wa sàq ñëpp daw bàyyi ko bi mu agsee naasi ci fajar bi muy sëlmal juróom-ñaari nit la fekk ci ginnaaw bi ko waxee ñu daan ne ko ah, yow de xam nga ne ku mënta dékku ay bal ku mënta dékku taw ak ngelaw xiin ngelaw doo mën a dékku ay bal mu daal di bàyyi jihaat jooju daal di jël jihaatam maanaam jëmale ko ci defar nit jëmale ko ci defar nit jàngal ko yar ko tarbiyee ko teg ko ci yoon woo xamante ne bii ëllëg fu mu dem nekk fa échantillon bataana maanaam euh, ku sant sill wala nga yaroo Tayba wala nga am mbokk mu sant sil maanaam foo bokk da nga fa doon exemple ba ci mbàkke mbake yi tey ku ci am yaay ju sant sil maanaam sa kër baay da nga fa nekk exemple suñ la ko suñ la ko waxee ak suñ la ko waxul ñu bari dañu roy ci yow loolu ndeysaan suñ xaliwun suñ faalu mos na ma ko wax xam nga kooku du waxee bakkana loolu Matar Penda moo ko def ci ñoom parce que bi nga xamante ne bii moom jël na jihaatam nag daal di koy joyal ci defar nit defar nit nga xam ne moom day defar nit rek pour mu kii ab taawam mi ngi tuddoon Moussa Daara moom mataar Penda moom Moussa Daara moom moo bokk moo ëppoon xam-xam ci réewum senegal mii parce que Serigne Touba mi nga xamante ne bii moom hors classe la wax na ne seereel na ko xam-xamam sëñ Mbàkke Buso sëñ Mbàkke Buso tey jii ba léegi boo demee tay baxe fekk fa ay sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke yooyu sëñ Mbàkke Buso lañ leen tudde ndax maanaam kóllëre gum amoon ak Moussa Daara muso Daara yàlla dogal na amut moom ak njaboot benn doom bu jigéen la ko yàlla may waane mbooleem ay taalibeem yu bari tudde tudde na leen doo tudde na leen ba léegi ni boo demee fekk tay ba xay ay sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke yoo xam ne boo leen laaj man sëñ Mbàkke lañu tudde duñ ko xam fekk sëñ Mbàkke Bousso lañ ko tudd lañ leen tudde looloo ko waral sëñ Mbàkke euh, maanaam sëñ Mbàkke Bousso moomu noonu la nawe woon xam-xamub Bousso Daara te mooy taaw Matar Penda Bousso Daara moomu jëmm la woon joo xamante ne bii mën naa ne Sénégal moo ci rawoon ki ñuy wax sëñ Babacar Si jàng na ci moom sëriñ Aliou Guèye mi nga xamante ne bii moom mooy kii yu sëñ Sam maanaam mooy kii yu Tijaan yi yëpp nga xam ne si mbooleem borom xam-xami Tijaan ci moom lañ jaar sëñ Aliou Guèye moomee Moussa Daara ko form bokk na ci premier élèves yi jëkk a génn ci kalaasam kon Moussa maanaam euh, maam xaani mutu fa mii tam kon moo tax xam-xamam béttut kenn ndax ak xarañteefam ndax boole na mbooleem ñi nga xam moom la ñoom la maaseel lool noonu ñu doon jàng moo leen ëppoon xam-xam ndax lan da leen a gënoon a xereñ gën a xam ak ràññee gën leen a amul ràññee kon nag bu yàlla dogalee tey ay sëtam di dajaloo di bëgg a xamante di trouver vous ñoom war nañoo jël seen xam seen yitte jëpp ñu jëmale ko ci ràññee xam-xam moom ñëpp ko am fi mu ne xam mi ñëpp ko am waaye ak ràññee moo jafe lu mat a lu mat a lu mat a def la ndax ba ci ba ci fi xam-xam mu asraar bii nga xamante ne bi ñu bari dañ ciy jongante ak di ci kii nga xam ne tey jàpp nañ ne mooy kii fi mu ñu bari ñu ngi koy def sax waaye amuñ ci ràññee te bari na luy alal nit ñàkk xamuk ràññee ko waral ñàkk am ak ràññee kon bu yàlla dogalee ñu ne kan mooy sa maam nga ñu ne xaadi xaadi Moustapha a ah, vraiment war ngaa am. lépp la ngay dugg war nga caa am xam-xam bu leer nañ yàlla dogal tey sëti xaadi daje bi waxtaan di yokk ak bokk ah nekk ñoo xam dañoo bëgg a xamante ginnaaw bu ñu xamantee xaa xaar duñu yem ci xamante bi donc wala dañuy yem ci dañuy xamante rek bàyyi noonu wala sëñ bi am na leneen lu ci war a topp ginnaaw xamante gi waaw li ci topp nag damaa jàpp ne bokk na ci fexe ba téyewaat téyewaat héritage bi maanaam ndono li ñu fexe ba téyewaat ndaxte tey boo xoolee euh, bu ñu demee bu ñu demoon tey tay ba xay fi mu toll nii bay bàcc fan ma nga xam mooy borom dëkk ba toog na juróomi at bëgg a dëkk ba mënu koo liiñe yéen a ngi may dégg. bàyyi bàcc Fatma may borom dëkk ba toog na juróomi at bëgg a dëkk ba mënu koo liggéey dégg ngeen ma daaw la koy dogal liggéey ndax lan maire ba fa nekk bu ko bëggee liggéey mu bañ ta tay ba xëy nekk dëkk boo xam ne nee naa la demoon na ba nekkub état. tey ñuy deltu ginnaaw di deltu ginnaaw di deltu ginnaaw ba mënuñoo liñe seenu dëkk dëgg liñu seenu dëkk mënuñu te tubaab bi année année année année cinquante année kii année année année mille neuf cent vingt yooyu après premier guerre mondiale bi mu ñëw xam nga gàdd googu dafa nekkoon ay taax dane woon da koy maanaam dañ ko doon dagg titre foncier bàyyee cent ans maanaam maam xaalim moo ko arrêté waaw moo ko arrêté ndax dañoo tàmbale dagg rek xam nga gàdd seen seen suuf aw xur la neexut a dëkke ñu daal di ñëw jëm ci montagne bi jëm tay baxay boo xoolee fi ñu doon lépp lu am importance gàdd forage ba ci suuf tay baxay la nekk mairie ba ci suuf tay baxay la nekk euh, dispensaire ba ci suuf tay ba la ba la nekk yooyu yëpp maanaam ñu commencé di dagg di ko jaay naar yeeg tubaab yi maam xaadim moo ko arrêté boo moo nekk seen tay moo ñëw arrêté ko daal di toxal tay indi ko sës ko ci gàdd te booba année vingt laa la wax de après première guerre mondiale xam nga ne booba nit ku ñuul amu fi dogal de booba damee rek tey ñi yëpp nooy nañ waaye maam Xaadim moo résisté ar freiné euh, kii boobu léegi tey ñu dem ba bëgg ñun liiñe suñu dëkk mënuñu koo am léegi xam nga lan lañ ciy teg xam nga lan lañ ciy teg suuf soo seen xaar ñun moom la ñuy tiitoo naan suñ suufu maam dañuy ñëw dagg ko ay parcelle wala ñu dagg ko ay tool jox koy ay nomade ñoo xam si kenn xamu leen te duñ ci man dara loolu nag faw nu bàyyi ko xel ñun ñu dëkk tay ba xay faw ñu bàyyi loolu xel ndax tey lee bàyyi bàcc ma yor su ñu xoolee ba mu jóg ci ay loxoom ci noo xamante ne bii du yoon loolu dafay nekk maanaam gàcce goo xamante ne bii ci képp ku dëkk tay ba xay lay doo waaw lan mooy ci suñu responsabilité ak ban responsabilité lañ ci war a jël loolu moom laa leen di laaj kon ñi nga xamante ne bii am nañ fa ay mbokk ña fa des tey bi ma leen recensé man nañ juróom-ñaar fukki nit ñu sant sill ndax tey boo demee kër Amadou sill gaawaan sill yor na ñaari soxna yor na ñaari goro ak ñaari doom yu am soxna nga dem ca siidi sill yor na ñaari soxna ak ñaari rakk yu yor ay soxna ak yaayam nga dem kër Ibrahima sill da nga fa génne lu mat vingt personnes yoo xay ne am na ñuy kayit nga dem kër Moodu Sylla eh, eh, sanc da nga fa génne fukk juróom yoo xam ne am nañuy kayit nga dem kër Moodu Taye bépp génne fa juróom yu ami kayit nga dem kër Baye Bàcc Fatma génne fa fukk yu ami kayit ñooñu boole boole dañ ma juróom-ñaar fukk ñoo xam ne Sylla lañ sant te ñoom ñoo ñu fi ñu toll nii kenn ci ñoom bu même kër Ibrahima Sylla ga nga xamante ne bii tey moo fa ëpp population nga xam ne tey man bu ma doon wote ji fa laay dem ñoom bu ñuy voté kenn ku ne da ngay voté ku la neex. bokkuñu benn benn benn kii léegi lan moo tee lan moo tee ñun ñi nga xam ne ñoon ñoo ne fii bonte mënuñoo dem wote ñu def influence ci ñooñu influence leen ñu ànd ne gaawaan si li yaa fii kilifa ginnaaw bu bàyyi bàcc ma wéyee tey te bàyyi bàcc ma mën xamatul dara nang na léegi yow diriger mbooloo mi ñu am fu ñu jaar ñoom ñëpp ñu nekk ci ginnaaw kenn ñu dooleel pour notel gii fi nekk man fee jóge defe naa influence boobu buñ ko defee loolu mën naa kii te itam ñun ñii war na bu fekkee dañu am ay ay occupation yoo xam ne mënatuñoo dem transfert wu dem wote ji tay ba xëy itam ñu fexe ba suñ njaboot ñenn suñ njaboot dem di fa wote parce que loolu dana dana dana gonfler fichier bi dana tax ña sant la am fa doole waxuma la commune Gàdd mais tey arrondissement Ndindi waa Taïba ñi ñoo ko war a téye en main parce que loolu ñef administration bi ñoom loolu lañ gëm ba léegi ni tey préfet bu fa nekk bu ñëwee gis kii bi dana day laaj a barki dem rek am na ko ma ci waxtaan mu ne préfet bi mu bees bi da koo laaj ne ko waaw ñi sant sil moom lan lañ doon fii ndax man damaa gis maanaam ñoom seen kii histoire daal maanaam da ay kii yuñ fa lii mu ne ko ñi sant sil boo fi bëggee yàgg da leen wormaal da nga leen déglu waaye loolu nag day dem ba dañ koy ñàkk ndax euh, daaw jéeg bi nga xamante ne bii élection yi ñëw na élection législative yi ñu doon def xaw ma kii euh, dane leen dañ ne mamoor bi nga xamante ne bii euh, moom Baye Baaj Fatma dafa moo nekkoon numéro deux mais boo yi dañ ne ko yow jàngoo doonu jiite daal di koy écarter nga xam ne Mamor dafa mujju mer génn kon loolu doon loolu sax doon toon sujet sujet bi doon maaw dox bi mais damay damay wax rek li nga xamante ne bii naqari na ma ci jataay bi parce que ñun bu ñu dajaloo fii doon mbooloo moo xamante ne bii ñun ñëpp ñun ñëpp ñoo ànd bokk benn bëgg-bëgg mooy lan suñu maam li mu def ci àddina nga xamante ne bii tey ñëpp xam nañ ko Matar Penda boo ko waxee ñëpp xam nañ ko maam Xaadi Mutu ko boo ko waxee ñëpp xam nañ ko nga xamante ne jamonoy tubaab bi booba kenn ñemewut a def dara moom biñ bëggee dagg ab dëkkam caxat-caxatee ko dafa lank ñëw freiné tubaab bi nekkoo fi ngay yem daal di toxalub ñëw samp fa ay ay bornam ba léegi nii borne yi am na yoo xam ne borne yoo xam ne dañ koo borne woon ba ci biir suufu say ba xay ba léegi nii kenn dëkku ca dañ ko da koo occupé yow boo xoolee li ma la ne ca gent boo fa da nga fa gis ay borne kon kii doon def loolu tey kenn ñu tey ñu ay junniy nit ba pare xoolee yaafus di seetaan ah léegi kon ñun damoo gi ñuy damoo suñu maam lu mu nuy jariñ ban njariñ la kon faw ñu delluwaat xam ñun ñooy kan daa mel ne maa ngi bëgg a guddal am na ñeneen ñoo xamante ne bii war nañ cee sànni ay kàddu ndax mu al mu fàtti sa toog sëñ Talla Diop ak maam xaaree ngi ni toog soxna yitam xam naa du ñàkk ñu ci war a sànni ay kàddu waaye ci gàttal daal maam xaadi moom marqué na ay empreinteem lim waroon a def digganteem ak boroomam def na ko lim waroon def digganteem ak sëriñ Touba def na ko lim waroon a def digganteem ak ñim jamonoonteel def na ko li nga xam ne moom war moom la war na defal waa dëkkam itam def na ko li mu war na defal ay sëtam itam def na ko léegi sët yi nag ñooy xool ba xam dañuy bàyyi ndono loolu ndono loolu dañ koy bàyyi mu niile wala dañ koy téyewaat amee man nag bëggoon naa sëñ Talla sëñ Maamun man bëggoon naa mag ñee fa des muy ku mel ne sëñ Ibrahima Sylla ak sëñ Gaawaan Sylla ngeen waxtaan ak ñoom ñu invité xale yi waxtaan ak ñoom dajale leen ñu nekk wenn say ñu nekk wenn say ndax yéen bu ngeen ci dugalee seen kàddu loolu dina man a nekk ku mel ne man nag bu ko dee wax dañuy jàpp ne man damay gént <laughs> mais yéen bu ngeen ko waxee ñoom dina xam ne lii ngeen di wax nii lu am maanaa la te itam réew mi dafa toll ci soppeeku. comme dafa toll ci soppeeku na kenn ku ne li nga moom da nga war a parce que man tiit naa lool tiit naa lool ci li fi xew ndax gone yooyee fa nekk fin mu nii ñoom ñëpp ña nga ànd def benn bloc di di di di di kàlloo ak ñeneen ña ñu ci bari ay basile lañ léegi ñoom fi mu toll nii jàpp nañ ne mairie bi moom bu jógee ci loxol kee ci seen loxo la war a tege te ñooñu ñi ci ëpp ay saay-saay lañ. léegi nag ñoo ñun dañuy toog di seetaan mu dal ci loxoy ñooñu wala dañuy jóg jël suñuy matuwaay comme ni ko maam xaadi defee woon parce que maam xaadi kat bi muy écarté tubaab bi même kenn dong la woon waaye nag booba itam amoon na baatub bu jógee téeméer jóg wala junni jóg léegi nag ñun dafa mel ne loolu lañ bëgg a perte ndax tey saa boo ñëwee wax ak sëñ mii sa soxla ba noppi maanaam danaan maa ko ëppi soxla mag ñi nag daawuñu doxe loolu saa buñ mosaan a xam ne sëñ Abdou Samad am na soxla sàngam ñoom ñëpp dañuy jóg bàyyi lañ doon def jàppale ko ci soxlaam ba soxlaam si mat ndax ñoom ñàkk xam gi daal mooy seen problème waaye buñ ko xasee am moom xam moom amatuñ problème kon euh, ñun nag suñ problème mooy lan koo wax sa problème mu ne la maa la problème ñu loolu mooy suñ jafe-jafe te xam ne li may wax chaque jour euh, àddina àddina laa wax àddina sépp yatu kel la mag ñi dañ daa wax ne àddina yatu kel la sooy dox ànd ak say noon ba yam ci for ko boo ko foree yor ko daañu la weg boo ci lorut kenn tam daañu la weg mais boo ko woccee ba ba sam noon for ko yow yow nga dee kon àddina yatu kel la soo ci yamee rek for ko boo àndeeg say noonu di dox ba yam ci yetu kel for ko parce que boo ko forut boo ko foree da mucc ndax moom ñi nga àndal dañ la wekk donte yow sa nekkul ci saay-saay ci kenn waaye nag boo ko jéggee ba dem wallaay duutoo ko defal te foofu lañ tool kon ñoo ngi jéggulu bu baax ci kàddu yi xam naa thème bi dañ koo préparé wu dañoo bëggoon ku ñu ubbil orienté ñu te kenn defu ko ñu ñëw rek xuus di wax xaw ma li ñuy wax aw na yoon wala awtu yoon a ah, lépp loo xamante ne bii e, yàlla dogal na muy mu mu ci lu jub yàlla na nu sante ko yàlla te fas yéene koo jariñoo lépp loo xam ne wax nañ ko ci muy lu dëng itam ngeen jéggal ñu e, loolu daal moo doon kàddu yi kon yéen ñi bokk ci maam xaadi xam leen ne nii ngeen bokkee ci Taïba xaadi mutu fa Matar Penda ko jur Matar Penda sëñ Taïba Masamba Mareema ko jur sëñ Taïba Masamba Mareem sëñ Tayba maana sëñ Tayba Ahmadou Makhtar a ko jur Ahmadou Makhtar Maser Fatma Andala Cissé ko jur Maser Fatma Matar ma Demba Jëleen na ko jur Matar ma Demba Jëleen ma Demba Jëleen moo ko jur ma Demba Jëleen dañuy wax ne mooy Abdou Naanam waa Tayba moom moo gàddaaye woon njekki naan ñëw sanc Tayba bépp ñii mooy kii kon ñoo ngi jégalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa maa ngi maa ngi nuyu mbokk yëpp rek maa ngi siyaare mbooloo ñu fi teew ci def ci nuyoo bi suñ maamul si suñ mag ji ni suñu waajur yaa nday sill suñ bàll bi waxtaan lépp ñu ngi leen nuyu di ñaan ndaje bi yàlla ko yàlla barkeel daanaka li suñ bàll wax daa doo doon sëkk suñu waajur yi li ñu sàkku ci ñun moo tax rek ñu jël kàddu waaye kon li suñu bàll wax yu bàll nañu kenn du fi mën a waxaat lu ko lu ko ëpp ay bokk yu booloo moom dañoo mën lépp bokk yu booloo mën nañ lépp mën nañ ko ndax am na am na génn góor gu ànd gu nag doomam di dox ba yàgg doom ji na doom ji na ko doom ñu na ko bàyyi doom ji na ko bàyyi xanaa guy gii de mooman mën de mu ne ko waaw léegi xanaa guy gii moo de mu ne ko guy gi de am na la ko man mu ne ko la ko man mu ne ko xanaa waxambaane wu dëgër mu ne ko xanaa waxambaane wu dëgër de moom moo mën lépp de mu ko déedéet mu ne kooku de soxna moo man mu ko soxna lu ko man mu ne ko xanaa xale buy nàmp waaw mu ne xale buy nàmp moo ko man mu ne ko bay xanaa xale bu xale buy nàmp moo man lépp mu ne ko déedéet xale buy nàmp de nelaw moo ko man mu ne ko bay xanaa nelaw moo man ci àdduna bi mu ne ko déedéet mu ne ko nelaw de soxla moo ko man mu ne ko bay xanaa soxla moom moo man ci àdduna bi mu ne ko déedéet mu ne ko soxla bokk yu boole ñoo ko man te soxla bokk yu booloo rek ñoo mën fa soxla lii muy wax nii ñàkk bokk yi ñàkk booloo moo moo teg ba leen teg coono boobu mooy teg néew doole googee te day day te li fekk boolewul leen day gën day gën a jëm kanam waaye du gi ginnaaw kon nag boobu ngeen taxaw ca ak ca mën taxaw ca ba ci tamit nit bu ko yàlla boolee fu baax moo boole ay bokk yoo xam ne yu baax lañ da koy xam ta fonk te jàpp ko dama ko jàppee mooy day njëkk a xamal jàpp ay bokkam. di leen nemm ko te di leen jokk góorgóorlu ci boppam ba lu doon xool ca maam yooyee ci lu baax mu nekkaat ca askan woo xam ne Sëñ Tuubaa moo ne woon moo digle woon daan ne na ca ñëpp wut kooku yàlla barkeel na ko taw askan woo xam ne tawab Sëñ Tuubaa ci la ci la ci la bokk loolu yàlla barkeel na ko léeg-léeg sax dañuy dañ may tubaab da ngaa bëgg bopp bëgguma sama bopp bëggu mbokk sama bopp laa bëgg nit day bëgg boppam. te nit bu bëggul boppam du bëgg du bëgg keneen yow bu dee yow askan wi nga bokk sa maam ñi nga am bu dee wàllu wërsëg ñoo ko fi bu dee xam-xam ñoo ko bu dee yàlla ñoo ko ëppoon kon loo boo bokkee foofee da nga war a xam sa bopp te nit ki nga dimbali ko ba man boppam nga dimbali ko mu xam boppam da koo gën nit nga dimbali ko ba man boppam nga dimbali ko ba mu xam boppam da ko gën sëñ Tuubaa dañ ko mas a wax ne ko ñu sant Sylla dañoo dañoo rëy mu leen déedéet dañoo dañoo rëyee mooy yàlla nit ki bu rëy day war a rëy mooy yàlla loolu moo war loolu loolu war a mel. beneen ba ci desat xaalim yi ñu fi dajale te mooy lépp fexe woon na ba sëñ di waxtaan ak moom te jikko ma taxoon ak xam-xamam akub juddoom fexe na ba ba sëñ Tuubaa si mu Mustafaa jël ko teg ko ci wetam. ba yëkkati na sax doomu ndeyam may jox ko soxna kooku ak nawloo la loolu tamit lu mat a bàyyi xel nit tamit te ñoom yàlla dafa leen wilaya goo xam ndax keroog wilaya yàlla yàgg leen ko defal waa tey ak wilaya ndax suñ Tuubaa si suñ suñ Ahmad Nomar bi ne ko yàgg Maamar Anta Sali ku gën daal moom a gën doom ndax Maamar Anta Sali ñëw na fii reyal fan weer gàtt. fanweer xar reyal naa ko keroog ba ba sëñ Tuubaa Maam Mor Anta Sali na ne sëñ Tayba ñaanalal ñaanal sëñ Tuubaa mii dana ko wakam abin qad ala bi nutara sharafin kama ala bi rasuli adnaanu dano kii ma gis de kii ma gis nii di gone di di askanu adnaan ne ko yonent bi yëkkatee kii dina yëkkatee askanu Bàkke noonu moo tax benn bis sëñ Tuubaa daa toog ba yàgg mu daan ku ma toll foofu ñu ne ko Modou Habib sëñ Modou Habib ne ko man la man ko Modou Habib maam ko lu ma jën lu ma yëndoo jaamu yàlla may na ko askan tey ba tey ndax dañ ma si Amadou Mar damaa xam lu yàgg taxaw taxawu sama bopp damaa xam lu yàgg taxawu sama bopp benn bis ma mbokk mi Maasa Jaxate mi seede mbokk mi soxna Maasa Jaxate ñëw sëñ Tuubaa soxna sëñ Tayba ko na ko mbaaral ko te nga dànd ko ndax dafa am lu nekk ci am na lu mu nuróog nit ñi waaye du nit moom bi mu ko ñu toog di waxtaan mu ne ko Ahmadu mu ne ko Mbàkke mu ko taal fa taal fa lëndëm mu boo demee Fuuta am ñu fa taal soo demee Kajoor am ñu fa taal demal Bawol Bawol Bawol du tuxu te Kajoor Kajoor fu mu dégg ñee wuti ko kon demal ba taal Bawol moo tax suñu Tuubaa ñëw kon ab cër ki nëpp leen ko ci Touba ëpp leen ko waaye nit nag lim njëkk war a xam mooy xam boppam xam yàlla mi ko bind xam ay bokkam te xam naka la leen jàppee sonn ci boppam ba koo gis xam ne kii nit ku yiw la loolu mooy mooy première fois bi la maam yi la maam nekkoon nag ci la maam yi nekkoon ci lu baax mu jëm caa nekk te te di ko doxal ñoom ñoom soxla kese bu ko masaan am dañuy toog dajal jël seeni kurus def ay dog buur bu leen mos a lijjal bu ñu toogee jafe seen i ñaan buur buur ba faatu kon loolu nag mooy loolu waru fee jóge ndax maam maam xaali mii ñu wax tey mas naa mas naa am na buur bu masaan bu masaan bu masaan dóor ko dóoroo suñ mbir dana ko ma de man dama damaa màggat te xam naa ne bu tubaab bi génnee man dama ci àll bi lay faatoo béyu ñu gaaw ji ji ma defi dog te boobu maam xaali mii moo dóor buur boobu kon loolu lu ma ta bàyyi xel la kon lii tamit lu sant nañ baax ñi ko sant Baye Fall Sëñ Fallou Galas ak rakkam yëpp rek ak mboolem ki fi teew ak bokk dafa am solo te képp koo xam di nga ko jokk yàlla du la mës a gàccal képp koo xam di ko di ko jokk rek yàlla du la mës a gàccal yàlla dina sàmm bu baax ndax képp kuy jokk say bokk yàlla dina sàmm te tamit gàcce doo ko mës a am mukk ci àdduna fan mu gudd yàlla mën la koo defal kon loolu lu mat a bàyyi xel la. loolu laa bëgg ñu bàyyi ko xel bu baax Sëñ Balla li li li sax tamit mooy suuf yi nga xam ne yàlla dogal na ñu ngi koy waxtaanee te war te faa dem war koo toppatoo boo alxamisee war ñu war faa dem ñu yow mi weew nga jëm caa bokk ñu ànd ci dem seetu jëm koo toppatoo ji mooy ci fee maam xali nekkoon loolu tamit lu am solo la kon sant na ñëpp ñi fi teew daal. xol bu set nag lañ am moo tax ba tax mënuñ mënuñoo wax dara daal ah dëkk bi maam xaali nekkoon kër xaali ca ca Lambaay soo so lañ bëgg a toppatoo ci incha allah alxames ak jàmm ngir bëgg caa jotaat waaye nag def ndànk rek bu fas fas yéene kon tey moom sant nañ ñi fi teew ñëpp rek suñu waajur yi fi teew yëpp ak suñu mbokk yi fi teew yëpp ndax lii moom lu rafet la adduna tamit boo ànd ak say bokk an ak bokk jàmbur nit nag bu la defalee yàlla bu defalee bokk yu baax war nga leen a sagoo te di leen jàpp waaw li may faral di wax nit ñi di ma ree ma naan sa saa bokk fi gën sa saa bokk fi gën loolu moom ñëpp xam nañ ko maa ngi sant ñëpp rek di gërëm ñëpp yàlla yàlla fay ñëpp rek yàlla ñu ko teewee ni gën déwén te yàlla ñëpp amit teraanga wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu